asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki Wilaya jii seen mbokku taalibe Cheikh Bamba Leye bokk section Thiès euh, di secretaire général adjoint fédération des groupements religieux et culturels de Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, tey jii euh, bureau fédéral dafa déplacé woon ci Ngaye. ci initiative président ak secrétariat d'organisation bi organisé woon tournée bu ñu waroon amal bureau fédéral ci section yi Ngaye nag nekk tey première étape mu nga xamante ni bi ñu reprendre tournée yi fi la bureau fédéral doon ñëw ñu amaloon fi réunion bureau fédéral ci suba gi malgré retard bi ñu am après waroon recevoir waa section Ngaye bi yëpp ak ku ñu jóge ci gox gox gox yu fasantikoo ay mexetu waakan ay ndëkku ñu jóge ndëkku ñu jóge daarukaan ñëwoon fii ñu amoon liggéey bureau fédéral waroon dajeek ñoom fii li nga xam te ne moom la ñu may njëkk a jàng ci réunion bureau fédéral bi donte am na retard waaye xam nañ ni am na importance importance yi mooy am na liggéey bu ñu dénkoon commission yi commission yëpp commission yi nga xam ne moo ci fédération yi lu ci mel ni administratif amoon nañu carte numéro yi nga xam ne depuis deux ans moom la ñuy jëmul mooy carte numéro yi nga xam ne moo am léegi tey jii rek bureau fédéral bi euh, euh, informaticien bi indi na neuf cent et quelques presque mille cartes indi na ko nga xamante amoon na retard ci tiire ko donc ñu ngi koy jox seen i borom nii may wax ak yow. nga xamante ni moo jëm ci wàllu social am na ci avancée significative jëm ci huileries yi wax nañ ko ci fa lañ ci war a toll. jëm ci euh, formation yi nga xam ne moom lañ soxla ci yenn membres yi ñu ngi koy am ba léegi jëm ci yu bëree bëri li nga xam ne moo jëm ci wàll organisation <coughs> ñoom ñoo inscriroon programme mu tournée bi nii tey jii ñu ngi nii di ngaay war a xëy dem Kébémer deuxième étape bi suba. li nga xam te moo jëm ci wàllum seen relation extérieure gis nañ seen exposé bi nga xam ne rapport moom la ñu jàllale fii wax nañ ñu avancé yu am solo ci seen Cheikh ci le plan extérieur ak ay projets yi nga xam te ñoom ñoo ngi koy nësër yu nga xam ni amal na jëriñ fédération bi ak ay euh, di sàkk aussi ñu fàttali ko baax ñoom ñu ngi joytu soxla xam fan la carte euh, diaspora bi féete donc yaakaar naa ne bokk na ci yi nga xam ne imprime lañ ko fii xëy na mu fekkente ne bokk na daa leen ko jox euh, li nga xam ne moo jëm ci wàllu finance nga xam ne moom laay mujjee te mu jàpp naa ne tey mooy li gënoon a yaatu ci fédération bi ndax dañoo dañoo soññee soññee njaayam carte jaayante yi nga xam ni moom la membre yëpp yëpp yëpp was euh, warloo ak fédération bi ndax loolu mooy doxal activité fédération bi ku bëgg dara def dara li ñu bëgg nag mënuñu ko am tànk xaalis amul. gis nañ ni tey lu am solo jéegu am am solo torop trop trop gis nañ ko ci résultat bi nga xam ne si Moussa initiative def na ko ci njiital Soxna Leyla ak Madiaye Dia ñi nga xam te ne ñooy rek commission finance te xëy na dama yorul détails yi nii en tête mais li ma wóor boor mooy section yi ni nañ versement yu bëree bëree bari jëm ci carte jaayante yi beneen initiative bi nga xamante ni lu bees la lu nga xamante ni commission finance indi na ko ci bureau fédéral tey jii ñu wax ko mooy carte góor yàlla yi carte góor yàlla yi am na yu cinq mille am na yu dix mille am na yu vingt cinq mille vingt cinq mille nag liñ ci liñ fi ñuy dut baaraam mooy dañoo bëgg bépp daayira bu nga xam yaa ngi ci fédération bi maanaam waxuñu section mais daayira bépp nga xam daayira bi nga xam ne yaa ngi ci fédération bi dañu bëgg daayira ba jënd carte góor yàlla bu vingt cinq mille nga xam te ni président fédération moo ci def cachet ñu bind ci carte góor yàlla ab tableau lay doon boo xam ne dañ ciy bind turu daayira ba ñu ngi sàkk aussi ci membre yi nga xam ni ñooy mën nañ ko ñu jënd carte góor yàlla yi yu vingt cinq mille yi ba cinquante mille ba am na cent mille am na carte góor yàlla yi nga xam te ni sëñ bi daa wax ko tuddee gold maanaam mooy mooy mooy carte bi nga xam te ni mooy carte or lay doon loo xamante ni membre yi nga xam ne suñu borom may ne la ñu ëpp loo xamante ni am nañ lu ëpp loolu lim yooyu nga xam tudd nañ ko am nañ yéene jënd carte donte un million la ñoom la ñuy naan ñoom ñooy proposé man damaa bëggoon ngeen jaama carte boo xamante ni carte góor yàlla bu un million parce am na ñoo xam ne seen yéene romb na ci lim yi ñu tudd ñooñu pour pour may leen pexe yi nga xam ne moom lañ tàbbee ci liggéey bi moo tax ñu indi loolu xam naa incha allah bu suñu borom mayee ak jàmm ak salaam ñoo ngi koy defar nii dafa pareegul mais xam naa prochaine réunion bureau fédéral incha allah rabbi carte góor yàlla dina disponible dañ ko jox bépp membre bu nga xamante ni yittewoo nga ko. ñu yaatal ko yaakaar naa grosso modo ci commission yi loolu moo ci tënk ko am na ay ay yeneen i xalaat na yoo xam te ni jéggan ci yenn commission yi éducation diverse bi yaakaar naa ni loolu mooy li nga xam moom la gën a tënk ci activité euh, commission yi. maa ngi santaat bu baax waa commission communication rawatina seen produit élément mooy wilaay TV bi nga xam te wax fa yàlla moo ngi permettre ñi nga xam te ni de loin ñi ngi xam li xew ci fédération bi ñu ngi koy dund bu baax a baax a baax di soññ sama bopp. ci ñu abonné ci ci ci YouTube ci chaîne YouTube bi wax dëgg yàlla mooy tax euh, ñi njëriñu njëriñu chaîne bi Wilaya TV bi ñu gën ko xam ñi ma koy defee bëgg xam ku bëgg may may lancé appel lance appel ginnaaw son yoon lancé appel képp ku nga xamante ni bëgg nga xam fédération dëgg dëgg doxalin gi lu la ci bu yaakaar naa boo constaté Wilaya TV dootu am daal loo ci ëpp ndax yéen yéen a ngi jël seen matukaay di wax dëgg yàlla di accompagner fédération bi ci fépp section bu mu jëm réalisation bu mu def ay vidéo produit yu bëree bëri yu am solo yoo xam ne boo consulté site Wilaya TV bi da nga ko ciy gis yoo xam te ne wax dëgg yàlla seen xarañte moo ñu may tey ji ñu am yooyu man wax dëgg yàlla lu bëri lu ma rëccoon ci Wilaya TV nga ko mën a daboo donc may lancer appel ci mbokku taal bi nga xam te ni am nañu bëgg-bëgg ak yéene dabuwaat événement yi xam ne rëcc na leen dama ci abonné ci Wilaya TV bi rek incha allah suñu borom a dem rek maa ngi leen santaat bu baax a baax a baax di leen gërëm di sant bu baax personnellement seen jëriñ seen assan Mbacke di ñaan yàlla mu yàgg taxawaayam ak équipe bi nga si ginnaaw yëpp ndax yéen macha allah suba ba gis nañ yéen a daaw ak a ñëw ngir léway taaru yéen ñaanal suñu borom mi nga xam te ne moo am fa yàlla na leen fay bàkk seen Cheikh Mbacke jërë ngeen